Euh, dañoo nekk ci euh, àdduna boo xam ne Afrique ak Sénégal dañu am ay suuf su baax suuf su naat ñëpp ñu ngi ko bëgg bu fekkee ñëpp dañ ko bëgg nag am ñu jóge bitim réew yore seen xaalis bu bari ñu ñëw leen joxe ay dix mille hectares vingt mille hectares ñu saax saaxe suuf si ba nga xam ne baykat yi ak ñi nga xam ne néew doole jotul ci ñi am suuf si mooy ñi jóge bitim réew ak ñi nga xam ne am na ay millions yi millions ci biir dëkk bi ñoom ñu jël suuf si yëpp nangu ko loolu mënul wéy ci réew mi. il faut que béykat bi sàmmkat bi ñi nga xam ne am nañu amuñu doole il faut ñu am kër il faut ñu am suuf suñu béy fu ñu fu ñu fu ñu sàmmee seen nag ba nga xam ne dinañ am lu ñu dundee loolu nag pour mu am il faut que gouvernement bi def ay textes yoo xam ne mooy aar suuf si ba nga xam ne ñëpp dañ ko jot pour ñu mën a naat parce que Sénégal du ñenn rek ñu war a naat ñëpp war a naat te loolu mun na am.